wanfanaa bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi muy suñu technicien bi di jaawo jàllo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanug jàmm ñu ñaan ko mu may ñu kendaluk jàmm ba tax na dañu deñ dañu taay di ko talal suñu loxo di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yahuudu salaam fa xayyinna bisalaam wadoxilna aljannata daaraka daaru salaam yàlla buur bi tabaaraka wa taala ñu ngi talal suñu yoxoo yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu jàmmal suñu réew mi yàlla nga ñu jàmmal suñu dund bi yàlla nga ñu jàmmal keroog bu ñu dajek yow nga dugal ñu si këru xéewal bi di arjanna mu di këru jàmm ba nekk fa yow man nga ko sañ nga ko yal nañu ko buur yàlla yenkewal yal nañu ko buur yàlla manal yal nañu ko ñu nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin ndax yow rek yaa ñu ko manal yaa ñu ko mën a defal kon yow la ñu koy ñaan yàlla nga ñu ko defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yéen ngi fàttali ko ba léegi ñu ngi ànd ak yéen suñu tem ba ñu nekk di waxtaan ak yéen ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji tey ba léegi ñu fas yéene leen andil leen ci melokaanu yonentu bi sallallahu alayhi wa moom mi yàlla wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bi ma la yónni yow sama ndaw du dara du lenn lu dul nga doon yërmande ñeel mboolem bindaa fooni sallallahu alayhi wa ba tax na bindkat bi mu daldi ñu baaxe ne ñu yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo tagg yonent bi ci anam bi nga xamante ne keneen ku dut moom yàlla amul kenn ku ko taggee taggin bi ni tagg na ko ci xelam ak ci xolam keroog jàngal nañ leen aaya bi te mooy aaya ba nekk naj mi yàlla ne ko wa maa yantiqu anil hawa wala wa maa dalla saahibukum wa maa gawa seen mbokk bi seen waaj yi du ko sànku du ko beew tey ñu fas yéene leen andil beneen cellaange bi ko yàlla laabal setal ba ka yàlla setal tezkiya ba ka yàlla defal mu jëmale ko ci xarkanamam yu sell wi yàlla ne ko yow sa xarkanam bi de du xarkanam ba nga xamante ne day raf wala muy tiit ca li ngay gis ci xëytu kawtéef moo tax bindkat bi ne zakkaahu fi basarihi bur yàlla tagg na ko sellal na xarkanamam bu sell woow mu ne ko fa qaal maa zaagal basaru wa ma taxaa xarkanam bi keroog ba mu àggee jibirin fa mu war a mën a yem aa lam fa gis but bi raful te xeful xippiwul la mu gis la gis te nam ko daan xoolee la xoole kon but bi raful but bi amul dara lu ko wara a yiim bi mu jaaxle mu ne ko maa zaagal basar xarkanam bi wengul xarkanam bi mendum xarkanam boobu la yonente amul distinction ci notabul beeg faqir bi du leeral xarkanamam ci ki am waaye du tëjal kanamam ci ku amul foo ko gis suuril bu leer bi ngay njëkk seen sallallahu alayhi wa ba tax na keroog ba mu àndoon nag jibril alayhi salaam jibril ne ko mënuma fi weesu ndox ñun ay jëmm lañ yoo xamante ne duñu weddi yàlla ci lim ñu digal dañuy topp di wéy ay ndigal yoo xamante ne buur yàlla moo ñu ko sant bokk na ci màndargay malaaka yi maxluqaatun laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yufaluuna ma yumaruun ay mbindeef lañu yoo xamante ne duñu moy yàlla ci li leen yàlla digal waaye dañuy wéy di moy ci lépp li leen yàlla sant moo tax jibril ne ko lu weesu fii xawma ci dara kon mënuma fi weesu jibril daal di soppeeku na mu meloon mu doon malaaka jëmm malaaka ba ko yàlla bind subhaanahu wa keroog yonent bi xool ko xar kanamam xool ko ñaari bëtam raful tiitul mu xool ko xooleen bi nga xamante ne amul dara lu mu raf moo tax yàlla ne ko keroog de maa zaaxal basaru wa maa taxaa bi raful jengul toxuñuwul daka xool ndax keroog ka muy dem rencontre ci audience boobu kooko ëpp jibril dayo kon yàlla waajal na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee ci maanaa aaya sallallahu alayhi wa sallam kuy dummuyu ñenn ñi muy nangoo accepté di leeral xar kanam yi xar kanamam ci ñenn ñi te yàllaa ka ka tere mu nekkoon ci suratul kafi wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaat addunia bul nekk di ñëggal sa xar kanam ci faqiir yalla njëkk wuyu si ci pauvreté ay pauvre yàlla njëkk wuyu bul ñàggasal sa xar kanam jëmale ko ci ñoom ngir taaro àddina ba nga bëggu ci notaabulu kuraysi yi bu ko def wala taadu aynaaka anhum bul nekk di ñàngal sa xar kanam wala di leen dummóoyu wala di leen xeeb bu ko def te loolu dara waralu ko lu dul turidu zinatal xayaatu dunia la ko waral pour nga am taaru àddina bu dee loolu moo waral ngay xeeb ña la njëkk wuyu si ci ñu ñàkk ñi yàlla ne yonentu bi jaru ko bul def noonu sa xar kanam ci ñooñee waaw kon yonentu bi daawul du mooyu ñenn ñi di accepter ñenn ñi yàlla bindewu ko noonu na muy suurilee ci ki am noonu lay suurile ci ki ñàkk na muy accepté di nangoo nekk ki am naftu sey wenn melokaan lay nangul di accepté képp ku ñàkk moo tax yàlla tagg ko ci xar bu sell bi ne ko doonoo kuy ñàngal sa xarkanam kanam ko ci ñenn ñi waaye keroog ba jibril soppali ko mu doon mbindunu malaaka ba ko yàlla bind ak jëmmam keroog de xarkanam bi tiitut ragalul xefut raful keñ nii lañuy ñuy déggee aaya bi ba tax na sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci maanaa xadis ba nga xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala xamal na ko ne maa bëgg nga xamal sama jaami ne leen këru àddina bi ñu nekk ni këru liggéey la këru liggéeyukaay la alaaxira mooy këru peyor ba waaye képp ku bëgg liggéey fii buntu liggéeyukaay yi bari nañu xëytu liggéey ba nga war a liggéey bari nañu ba tax na boo dajeek man mi di sa boroom ëllëg keroog bés di bésu peyor moo war laa fay langa doon liggéey moo tax ña yonentu bi yar sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñoom it ña yaroo seeni keppaar di imaam ahmad bun hambal rahimahullahu rahmatan waasi'a moo ñu ne adduniya daarul amal wal axiratu daarul jaza fa man lam yacmal xuna nadima xunaaka imam ahmad bun hambal rahimahullah mbokk yi moo ñu baaxee ne ñu àddina ba ñu nekk nii de këru liggéeykaay la këru liggéeykaay la ci liggéeyal sa bopp këru liggéeyukaay la ci ngay liggéey bu weer deeyee ñu di la fay këru liggéeyukaay la ngay liggéeyal nit ki ci la ngeen déppoo ne bu waxtu wa jotee nang ma fay këru liggéeyukaay la boo xamante ne dangay liggéeyal sa bopp ngir nga mun a suqaliku waaye bi léegi këru liggéeyukaay la liggéey boo xamante ne ëllëg bés penc lañ la koy feye moo tax mu ne adduniya daarul amal adduniya àdduna si ñu nekk nii àdduna bi ñu nekk nii daarul amal da di këru liggéeyukaay bu ñu ne këru liggéeyukaay nag kenn ku nekk si bu jógee dafa am la muy dem kirkiri kenn ku nekk si bu jógee dafa am la muy nekk peyoor bi mun naa nekk fii ci àddina waaye anakan moo opte liggéey liggéey boo xamante ne peyoor bi keroog bés pénc lañ la koy fay des na ci yow miy liggéey bu dee da bëgg a ñaari liggéey nanga liggéey fii ci àddina ki ngay liggéeyal mu di la ko fay nga di si fajoo sa aajo waaye nag bul fàtte liggéey àlaxira bi nga xamante ne moo gën a am solo ndax danga fiy jóge danga fiy jaar jàll bés bi nga demee fa nga war a teere ngal la waaye na nga dem ci trésorier yi ba yore kay fay nit ñi lañu liggéey fii su ko defee ñu mën laa fay moo tax mu ne adduniya àddina daarun kër la amal di këru waaye nag wal axiratu alaxira de daarun kër la jaza mooy këru peyor alaxira këru peyor la yow mi nekk fi di liggéeyal alaxira xamal ne alaaxira dañ lay fay ba wis yow mi nekk fi di liggéeyal alaaxira xamal ne alaaxira këru peyoor yow mi fi nekk di bàyyi xel ne dinaa liggéey fii la tax alaaxira keroog ñu di fay xamal ne yàlla nee inna allaha laa yadiu ajra al muxsinin bur yàlla nee man yàlla dee du ma sàggane peyooru way rafetal ñi yow miy liggéey fii di rafetal sa liggéey moo xam liggéeyu àddina la moo xam liggéeyu diine la liggéey boo munti liggéeyal dal fekk yaa ngi rafetal di ko sellal yàlla moo la promesse ne la inna allaha naka yàlla laa di deet muy sàggane ajral muhsinin péyooru way rafetal ñi ajiral muhsiniin péyooru képp rafetal la nga nekk di liggéey yàlla nee na doyadal duma sàggane péyooru way rafetal ñii di liggéey ñuy rafetal seeni liggéey kon yow mi di liggéey ca liggéeyu àddina yàkki nga séqal liggéey bi nanga nga rafetal sa liggéey ba nga kay liggéeyal bu la fayul dara lu ko jar yàlla neena duma doyadal duma sàggane peyooru képp kuy rafetal buur yàlla tabaraka wa mu ne bi léegi man amila saalihan képp ku jëf-jëf ju baax min zakarin moo xam ku góor la aw unsa wala moo xam ku jigéen la wa huwa fekk moom bum doon liggéey liggéey ju baax jooju bum doon jëf-jëf ju baax jooju muminu da di way gëm yàlla yàlla nee na kooku mooy koo xamante ne fala nuxiyannahu xayaatan tayibatan kooku la ñuy dundal dund bu teyte dagan dund bu neex waaw te keroog bés penc dinañ ko tàbbil kër gu am solo wàccuwaay bu am maanaa lañ koy wàcce keroog bis pénc te mooy arjan kon képp ku fi nekk di liggéey liggéey bu sel bur yàlla nee na maa lay fay ca feyooro bi duma ko jox kenn man ak yow ma fay la moo tax imaam ahmad bun hanbal radiyallahu anhu nee wal axiratu daarul jaza alaxira de kiru peyor la la nga liggéey fi keroog bés pénc boo jàkkarloog sa boroom loolu la lay fay ba tax na mu ne su alquran ci suratul zilzila fa man amal misqaala zarratin xayran yara képp ku jëf yiw lu toll ni zarra ñu ne zarra mooy pepp dañ la koy fay wa man yaamal misqaala darratin charran yara képp ku def lu ñaaw nga liggéey fi lu ñaaw donte tuuti na lu toll ni pepp dañ la koy fay kon xoolal ñaari peyoor yi ak ñaari jëf yi ak benn bu nekk yàlla melale ko bu dee daa tuuti ni pepp dañ la koy fay xoolal boo siy jëf bu dee ko conscient nga bu dee ko ànd ak sa xel nga xayran ngay jël yiw yiw boo nekk di jëf lu mu tuuti tuuti tuuti nu mu tollu ni pepp suuf yàlla ne dama la koy fay du ma ne ax ah, lii pepp suuf la jaru ko déedéet ndegem yaa ko liggéey yaa ko def yow lañ koy épargnel ñu fay la ko kon nañ leen góor góorlu ñu géem a suñu dund lu baax lu tuuti lu toll ni pepp suuf ndax keroog buur yàlla fay ñu ko subhaanahu wa taala looloo gën jël suñu appareil suñu loxo bi di yéeg ka wàcc di yóbbu gauche droite lu ne ñu xool ko lu ne ñu wax ci lu ne ñu déglu ko moo ne est amal nañ ñu njëriñ tontu bi mooy déedéet amal lu ñu njëriñ de waa lu tee ñu géem a dugg ci li ñu amal njëriñ kon yow mi ñuy bàyyi xel ci waxtaanu fajar bay jaar ci réew Rewmi FM 97.5 nañ leen bokk déglu ana koo xamante ne bu fi liggéeyul bu ñu demee fee lam fay nekkee moo tax imaam Ahmad bin Hanbal rahimahullah nee na fa man lam yaamalu huna képp koo xamante ni liggéeyoo fii képp koo xamante ni tuuroo fi say ñaq képp koo xamante ni occupé wuloo sa bopp la tax ñu di la fay fay ëllëg bés pénc mu ne la nadima hunaaka di nga rëccu fee moo tax mu la fa man lam yaamalu huna képp ku dut liggéey fii nadima hunaaka di rëccu fee fa man lam yaamalu huna képp ku takkut laxasaayam fas yéene liggéey fii nadima hunaaka dinga rëccu fee ñuy jëm liggéeyuloo fi balewuloo fi taxawee woo fi taxawaay ba tax ñu naan diw sàngam béréb sangam lay liggéey damay laaj moo ne kooku bu weer bi dee est-ce que sañ naa dem tàllal loxoom fa mu liggéeyul tontu bi ne déedéet sañu kaa def ndax bu ko defee contrôleur beeg trésorier bi ñoo koy ne hee yow foo jóge ak loo bëgg boo gisee ñi di ko ko laaj parce que daal deful dara lu tax muy tàllal loxoom ñu di ko fay waaye ñëw mi fa liggéey yow mi fay tuur say ñàkk di fa daan sa doole haa boo demee duñ la laaj te boo toogee ab diir ñu jox la boo demul sax amaana ñu woola ah diw sangam affaire yi feeñ na de est-ce que mun ngaa jaar jël sa salaire parce que ñoom xam nañ ne fa ngay liggéey comme sama waaju baax ñu nu mu koy defee rek yal na ko yàlla fay léegi-léegi mu woola nga ñëw mu am lu mu jëflanteek yow ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar waaw yal na ko yàlla jàppale ngom kon ñu ne boroom xam-xam bi di imaam ahmad bin hambal rahimahullah nee na àddina de këru liggéeyukaay la waaye àllaaxira muy këru peyoor bi mu ne ñu képp ku fi liggéeyul boo àggee fee danga koy rëccu ndax kenn du la fay saraxewoo génnewoo azaka et amul taam lil masakin defoo togg ñam jox ko miskin yi defoo ko faalewuloo jirim yi faalewuloo veuve yi jokk mbokk sa yoon nekku ci buñ lay wax nga ne man kese ak sama kii ak sama kaa man dong ak sama lii ak sama lee allahu akbar yow nga gane si àddina nga jaar ci ay loxo yu bari keroog ñaata nit ñoo teewee ca bésu tudd bu dee ñooñu xam nañ ne boo tolloo sa digg doole doo leen faale est-ce imam ba ñëw joxe tur sax dina teew déedéet te moo ne bokk na ñaan yañ la fay ñaanal ñu nodd ci sa nopp ndeyjoor ñu nopp ci sa ndox nopp ndeyjoor ñu xam loola fii ci àddina ñëw nga ci béréb bi nga xamante ne dañuy nodd boo déggee nodd bi da nga war a bàyyi la nga nekkee waajalal sa bopp dem joxe waxtu woowu waaye ci diggante ba ngay juddu ba keroog ngay ràññee des na ci environnement ba ngay dund bu dee ñoom mbiru seytaane lañuy ñuy gën a incarné xanaa yàlla dimbali tuut tànk boobu de waaye waxuma du gis yoon bu jub bi de waaye ci béy a ba mu ganesee àddina bu dee yàlla may na ko sens du fekk yaay ji di wax naka su dut noonu baay ji du wax naka su dut noonu baay ji lépp lu muy wax day méngoog la islaam jàngale yaay ji tamit lépp lu muy wax day méngoog la islaam jàngale baay ji lu muy meloo day méngoog njàngale islaam yaay ji melokaanam tamit day méngoog njàngalu islaam dañ ne tu tànk boobu bu màggee ci keppaar boobu kooku mucc na waaye bu màggee ci kontreelu melokaan wii loolu leneen lañuy wax ci moom kon su ko defee nañ leen bokk bàyyi xel ana ci lan wan xam-xam la ñuy géem a nampatal suñu ndénkaane yañu yàlla dénk nga xamante ne dañoo liggéey bi ñu feeñ ci jamono dañoo liggéey bi yàlla dénk ko kon nañ leen xaar ana wan résultat la góob keroog bés pénc ñoog ñoom képp ku bugg a góob résultat bu baax keroog bés pénc képp ku bëgg say njaboot góob résultat bu baax keroog bés pénc la nga leen woon yàlla nga teg leen ci siraatullahi al mustaqim loolu moo tax réew mi fm 97.5 ñu di leen tànnal thème bi nga xamante ne mooy la tax nit ki war a liggéey fii liggéey woo xamante ne keroog bés pénc buur yàlla da kay fay lam fi doon liggéey bala ñuy àgg keroog bés pénc ñuy dund anamu rëccute te moo ne boroom xam-xam bi di imam ahmad bun hambal rahimahullah moo ñu doon jox avertir bañ leen doon waxtaanal nii fii ci Rewmi FM ci waxtaanu fajar 97 point 5 mbokk yi boroom xam-xam bi daf ne di imam ahmad bun hambal adduniya naka àddina de daarul amal këru liggéeyukaay la wal axiratu alaxira de daaru jaza këru peyoor la mu teg si ne fa man lam yaamalu huna képp ku fi liggéeyul nag nadima hunaka dina rëccu fee jëm kon képp ku bëgg mucc rëccu te ëllëg bés pénc nang fi liggéey la tax ñu war laa fay keroog ba nga demee ci këru peyor be di alaxira ba tax na ñu wara a jébbal suñu élève ba ñu yóbbu ci daara vacances yi internat yañ ko yóbbu woon ngir mu jàngal ñu fukki saar yu mujj yi ci alquran tey ci kattanu borom bi subhaanahu wa taala dinañu jàngal juróom ñeenteelu saar bi ji neuvième suuraat bi te muy suuratul falaq bur yàlla tabaraka wa taala di wax yonent bi ne audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri naffaathaati fi lcuqad wa min charri haasidin ida hasad mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot suñu élève bi jàngal nañu juróom ñeenteelu saar bi te mooy neuvième suuraat bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal ñu yàlla may dégg topp lu jub ci kàddu gi ñu sante ko yàlla la dëng ci kàddu bi nag ñu ngi koy jéggalu mata doomu aadama bi la waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla ahli alquran allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal béréb bi ñuy tas xibaar ci nasaraan ñu fas yéene leen jébbal béréb bi noo ngi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala di ko ne allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulata umurina ihfas biladana min al fitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtanina waslih illahuma a'immatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ihfas biladana min al fitan ma dahara minha wa ma batan baraka allahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim amin ya rabbal alamin barakallahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu